Euh, ñu ngi fii ci kër Cheikh mun Mountakha xalif général kullu murit waaye itam ñu feggoog euh, le président Cheikh Alassane Sène tey mu ñëw euh, ànd ak ñi nga xam ni ñoom la war a àndal ñu di ko jàppale ci liggéey bi nga xam ni moom lay liggéey ci wàllu politique xam ngeen ni moom ñaari kasket la amee bu diine bi waaye ak politique bi tey nag mu ñëw ziar si baayam waaye ziar si soppeem Euh, muy Cheikh Mamadou Mountakha waaye ànd ak directeur cabinet am euh, Diaw ak mbooleem koo xam ne rek yaa ngi ci biir ndax buñ ko tuddee ñëpp ñu yóbbaale leen. Euh, président Cheikh Alassane bëggoon naa tànk yi tey fii ci tuuba ak màggal gi ban message nga ci joxe. d'abord di di di sant yàlla di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Euh, di ñaanal sëriñ Muntaxa mm-hmm. yal na fi yàgg te ànd ak wér mm-hmm. euh, te naal yi muy am ngir Sénégal yëpp ah. rawatina Touba gi mm-hmm. yal na ko àggale oh. ñu ànd ko ak moom ci barke maamam ci barke yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ma ñëwoon nag ko seet si ko ngir ziyaara ko ak ndokkeel ko ci weer wu tedd yi ñu ne nga xam ne sénégalais kuy sénégalais kuy der bu ñuul kuy àdduna da nga war a am mbégte mu kawe ci ci ci ci Sëriñ Tuuba taxawaayam mhm. démb rek maa ngi ciy waxtaan ak benn nit di ko wax fanweeri at ak ñett nga nekk ak tubaab bi ñoom ñu nekk ci seeni mbir moom mu nekk di tàgg gën gi mbindeef di liggéeyal boromam mhm. ma nekk kooku eh, war naa fexe attirer attention ñëpp ci àdduna bi mhm. loolee moo tax ñu def délégation bu mag bi ñëw ndokkeel sëriñ bi ñëw tam ko mu ñaanal imam Alioune Badara Ndaw mi mi wàññeeku yàggul ndax ci njabootam la bokk Sénégal yëpp a ngi koy jooy dem na waaye bàyyi na fi jëf bu kawe ci wàllu liggéeyal yàlla ak wàllu jàngale doxalinu yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa te loolee kenn mënu ko fay ci réew mi ñu ne beneen ba ca topp nag mooy ñëw présenter xalif euh, bi sama candidature ci mhm. élection présidentielle yi ñu jëm ndax jamono ju mel nii rek lañ ko mën a waxee lu mel nii ñu bëgg yëkkati pour réew mi mhm. ngir mu ñaanal ñu ci yàlla ndax sëñ Touba moo woote mbégteem bii mu am ci digganteem ak boromam ñun war nañ ci mën a suluxal sunu ay aajo mhm. euh, loolu nag surat rahman moo ñu koo jàngal marajal bahrayni yaltaqiyaan baynahuma barzaqul laa yabxiyaan lumière invisible boobu nekk ci diggante ñaari ndox yooyu leer googu ne ca ak mbóot ye ca ne ci mbóot yooyu le la sëriñ Touba indee bis bu tedd bii muy màggal gi nga xam ne sénégalais yëpp ko moom boo ca mujjee nag mooy indi woon ko aussi ñetti xasida yu ma bindoon jëme ko ci Cheikh Ahmad Bamba mm-hmm. ci wàllu taxawaayam ci wàllu cofeelam ci gën gi mindeef ci wàllu muñam mm-hmm. ci wàllu yëkkatikoom ak ci wàllu dimbale réew mi ba ku am gis-gis bu kawee dinga xam ne réew mi màggal gi ak la des ca kanam mm-hmm. ay soppeeku yu mag dana am ci réew mi yëpp di mbégte mu kawee goo xamante ni ku ne dana ci jëriñoo ndax liggéey bu tedd bi mu loolu yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam lii moo doon suma tànk fii ci Touba mm-hmm. di sant nag eh, ñépp rek di amaat mbégte saa yuñ tàbbee fii ci Touba ndax ni Serigne Touba meloon ak yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam lii moo doon tànk yi jërëjëfati jërëjëf président merci. su ko defee itam nee na na ko jàppale te ñaanal ko ñaar rek lañ lay soxlaa mooy jàppale ak ñaanal nun ñii dëkk ak yow loolu dong lañ soxla keneen ku fi ñëw it loolu la soxla jàppale ak ñaanal loolu moom yomb na la ñaar yëpp nga man kon jàppale ko te ñaanal ko man nga ko de te def ko nag jàppale ko te ñaanal ko mi ngi ànd ak euh, Abdourahmane jaw euh, ak Soxna May Diagne ak ñu bare bari daal délégation boo xam ne daal ñëpp am nañ cofeel am nañ bégte am nañu yëg ak may peex waaw ak may mbay doomi euh, Ablaye Mbay peex ak Soxna Sugaawaan si doomi sëñ Moustapha si waaw mu ngoog ak ajaratu Coro Samb kon daal sëñ bi yëf yaa ngoogu jàppale ak ñaan la soxla man nga ko def ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah saa su ne tabaski bu jot xar ma fëpp moo koy indi ne imaama ko moom loolu luñ lay séeréer la te bu fi sëñ mbakk yu nekkoon séeréer ko ku jàpp taalibe yi te di leen dimbali sëñ Modou Mbour sëriñ Mamour jërëjëf bég nañu xanaa santaat Cheikh Abdoul Khadir Jili mii nga xam ni bi muy ñëwee yegg si rek la cheikh Mouhamadul Bachir mi toog feeñal mbégteem xam ni yéen a bokk Serigne Touba président Cheikh Alassane nag fii ci Touba lu fi gan at mu jot mu ñëw bu jaaree ci cheikh Mouhamadul Mountakha dana jaare ci cheikh Mouhamadul Bachir muy xarit di soppe waaye yu koo xam ni lii Serigne Mamour Mbaye seede ñun mën na koo seede aouzu billahi samil alim min asheytaani bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bu ñu sante yàlla des di ko sant di julli si bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy daal di wax rek jërëjëfee sëriñ Touba di la ziyaara sëriñ bi ci dalal gi nga ñu dalal doonte fan yi xat nga lool ndax gan yu bari léegi naa jóge ci sa mag bu baax ci sa kilifa ci sa sëriñ sëriñ Muntaxa yal na yàlla yàggal ko wéral ko mu àggale naal yu mag yii mu yëkkati ngir réew mi bi ma bi ma ñaanalee ba noppi li muy xat-xat nee naa ko maa ngi ñëw seet si la mu ne ma def nga lu ma gënal def nga lu ma neex moo ma wax ñaari kàddu yi kon loolu euh, firnde la ne ku ñëw ci réew mii ba teg ko bët ba noppi war naa jaar ci yow nuyoonte ak yow saafonte ak yow ba pare delluwaat di gën a bég ci yow ci sa taxawaay ci yoon bi ci sa taxawaay ci réew mi li nga xam bëri na li ngay lijjanti ci réew mi ngir mu jàkk guddi su nit ñi di nelaw bëri na moo tax bis bu mel nii lañu am ngir ñëw saafonte ak yow ñaanal la yàlla nga yàgg fi sa kàttan yàlla yokk ko wax naa ko Mame Mor mii du benn du ñaar du ñett ndax man tam bëri naa attention lool ci réew mi li nga fa sa taxawaay ni nga koy defee ak ni nga amee yërmande ci nit ñi yemalewoo ko ci murid yi rek loolu li wër na réew mi saa yoo ko doxee dana tas ci biir kër yi tas ci xol yi loolu moo indi fépp fu nit ñi di dem ci Touba nga war caa jiitu te kat sa mag bu baax bi nee na neex na ko gënal na ko te fa la ñu jóge léegi da sant bu baax a baax a baax Mbacke léegi euh, sëriñ Jili sa sët wax na la yéene bi ñu am ci réew mi ci mille 2024 incha allahu taala sama dara nag ump la ndax lu ma fi mës a yëkkati rek su ma ñëwee waxtaan ko ak yow nga muuñ yàgg na nag mi ngi tàmbalee yàgg yenn yi Touba la yenn yi ñu daje fële ca boori Pout diggante baa ngi bëgg yàgg yéene boobu ñu am nag ñu ngi ciy dox ak pas-pas di ci déglu sunu borom ndax moom rek mooy maye nguur qul illahumma malikal mulki tuxtil mulka man tasha wa tanziul mulka mimman tasha wa tuxizzu man tasha wa tudillu man tasha bi yadika al xayr innaka ala kulli shay'in loolu leer na bi may ñëw ci avion bi maa ngi jógee Dubaï sëriñ bi di egsi yii ma la jox léegi bokk na yu ma bind jëmee ko ci samaam maam Cheikhul Khadim waaye bi may bind fan yi maa ngi ko bind ci diggante Serigne Touba wax naa ci ak Serigne Fallou mi dama ko bind ci diggante Serigne Touba ak yoo boobu ñuy wax mu ZZ nekk ca Lambaréné ak jasig ba fa nekk ci ni nga xamante ne ku mës a dem foofu faagaagal nañ la moom mu mucc ca ñoom ndax leer ga nekk ca moom wax naa ko ay nit man dem naa ba foofu gis naa jasig bi bi sëriñ tuubaa daan ut ndox ca dex ba ni jasig bi di ko dandoo tuuti ak yëngal génnam di barkeelu ci leer gi nekk ci yaramu Cheikhul Khadim gis nañu yoo bi ndax tubaab ku mus a yóbbu foofu nga bàyyi ko ci gox bi soo demee pour doo su la yoobi màttee mu zerse la tudd dootoo dellu si waaye nag Cheikhul Khadim leer gi nekkoon ci yaramam bàyyi ko ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam tax na muy yooba di jasig ba kenn ku ne ziyaar na daan def ca moom loolu moo tax mu dellu siwaat ci jàmm ndax na mu mel sëriñ bi damay gàttal kàddu yi di la ñaanal yàlla nga yàgg fi di ñaan yàlla lépp loo sumb ci yoon bi yal na ko sunu boroom mottaleel la ko ci barke sa maam Cheikhul Khadim ci barke bayit bu tedd boobu hadim sarrafat haaji ila fatixi ratxi wa inni law abdul wali jaada bil itxi xam nga xam nga sëriñ bi su demee ba nga xamante ne am nga anoblissement anoblissement ñu goreel la ba noppi nga wëlbatiku nekkat bi liggéeyal gën gi mi ndeef sallallahu alayhi wa sallam loolu de man la fi may daanalee sëriñ bi ñaar la dama liir ay téere mag ñu bari ci àdduna bi kenn ku ne wax ca bindam ne fëgg na buntu yàlla ba ñu ko ubbilee ne na yàlla maa ngi ñaan nga barkeel sama njaboot yàlla maa ngi ñaan nga yëkkati ma may ma ay maqaama maa ngi ñaan may ma ay daraja sëriñ Tuubaa fëggul place su fëgg bi bind la ko defoon jëmee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñu ko ubbilee benn benn aajo rek la amoon mooy tafoog gën gi mindeef nee na sallallahu alayhi wa sallam ba mu jotee grade bi ba ñu ubbilaat ko bunt bi laajaat ko ban aajo la amaat mu ne tafoo gën gi mindeef alxaqu min rabbikum fa man shaa fal yumin wa man shaa fal yaxfur wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu te buñ juddee suñ Abdou Khadim mi nga xam ne sama dooma sama sëta ñu tuddee ko Serigne Abdou Khadir ñu yarandoo yi boole ci ab taawam mu jébbalaan ma mu ne sama kër suñ bas kon sori na ma ak moom bu yàlla defee nga ànd ak moom kon wa aatu bu yoo tam ñu ne bu bi xay la kon ñu lay dalal jàmm bu baax ni ñu ko daa defee rawatina nag ren ndax dafa am suñu kilifa bu baax soxna mooy mbàkkeem Serigne Saliou moom ci boppam moo yónnee ndaw wax sa digg moom ak taxawaay bi nga am ci sa digg moom mu ñor ko lool ba wax ma ne bu ma sañoon bu dee lu nekk ñu delloo ko ci kër Sëriñ Tuubaa bi ma ne ko ah, loolu koy mbàkkee noo ko waxee kon moo tax bi nuyoo léegi ma ko am nga lu jafe soxna mooy ku xam xam ne bokk na ci ñi nga xam ne alal du leen jënd daraja du jënd noonu la ko yàlla jënd kon loolu tawfeex la rek. ju am ci moom kon ñu lay santaat bu baax nag di la gërëm ndax délégation bi fi bàyyi ko léegi di Abdou Aziz Ndiaye turandoom sëñ Abdou Aziz Alamine dama mas a nett bi sëriñ Abdou Lahad Mbacke nekkee sëriñ Touba neen dama agsi bi amee ab ñëw di fasante mu kóllëre ñaan ba ma agsee wax wax sama wax yu rafet ak kóllëre gi ma bëgg a fasante moom nee na mu mel ne ku gàttal jataay ba mel ne ku ko mooy jiite ne ko tàll mu ñaanal ma nee na ma tàll mu ñaanal ma dem ci ginnaaw ba ñu toogaatee ay ab diir ma del si waatu ànd ak association bu jëm ci wàllu lislaam bañ accès leeral lañu war a wax lépp nee na ba jeexal ne mu ne ah man de mbiru association duma ci dara ñaan gàttalaat jotaay bi ñaan beneen yoon ma dir siwaat délégation di wax ci biirum weer wi ne dañoo bëgg weer wi nekk benn ba fu ñu ko gis rek ñëpp ànd ci ñaan sëñ bi ah man de la lañu suñu baay jàngaloon lañ xam mooy mooy bu ngeen ko gisee ñaan woo bu ngeen ko gisul ngeen matal daa daal tëjaat jotaay bi ñaan mu mujj jaaxle rek ne ah sëñ bi fu ne fëgg naa fa waaye tëjal na ma bu ñeenteel ma dir ma dir siwaatee maag si ma yëglu ñu dalal ma ci barab indil ko fukki xar ak ñaari pëñuy gura ay keesi ataaya nee na teral ko bu baax nee na ba ma ñëw nga fi ñetti yoon yoon wu jëkkoon ba nga dikkee ñi laa doxale yow bu ñaareel ba nga ñii laa doxale yow bu ñetteel ba nag ñii laa doxale yow boo ma ne la ma ci doon jublu mooy dama la doon xool ba xam ndax li ngay wax dëggale ci yow déet ndax satub El Hadj Malick bu ñëwee kër Sëriñ Tuubaa bu fa amatul ceeb ci moom la waaye nattu naa la ba xam ne sam xel doy na sa jikko doy na ma kon lépp loo loo loo loo gisee bu dalee sam rek mën nga ma dugal ci biir loolu li ma ci leer rek mooy moom mii ñëw na fi ay yoon yoon yoo xam ne lu ci ne fasante ko leen ak jàpp ko indi waaye bi ma ko digluwaatee ba mu wax nag xam naa li mu wax dëgg na ci moom ndax man sama jëm bopp wax ji yóbbu na fa sori te Sëñ Tuubaa daa wax ne wax bu jugee ci xol bu jugee ci xol ci xol la bi bu jugee ci làmmiñ nag day jaay ci noppi jàll waaye lii mu leeral ku gëstu mbirum Sëñ Tuubaa dëgg dëgg dëgg ba xam ko du la ko jaral ndax làmbar na si seenu làkk mooy nañ dem seeti ba xam mënees na faa dëkkam déet loolu lay firi foofu ndax bara la moom kenn mu soma dëkk lii mu leeram boo demee ci archives yi am na benn médecin allemand boo xam ne defoon na benn rapport bu metti di dal ci kaw ña ko fa indi ne leen fii képp kuñ fa indi ku ne ka ko fi indi dañ ko war a atte teg ko ay daan yu ndax du fun di war a dëkk te Sëriñ Tuubaa lu jëy ñetti at muy làmbar yooyu te Sëñ Tuubaa dafa bokk ci lim jaayantoon digg ma boroom mooy du wokkutu du geesu du wokkutu lu ko yooyu di matt matt du du wokkutu Sëriñ Saliou Mbàkke jëloon na ko ci sëriñ bi ci barab yooyu sam ko ba yow sa jëm boo yeexee doo mën a te du ko yëg te du ko te du ko def bi loolu dafa ja ko jaayantoo ak dëkk bu metti ni ko waxee kon ni mu gëstoo mbiru Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa sëñ Abdulaay daa waxoon waa daayira seen murit bi ñuy def seen ndaje yére yooyu ci biti mooy leen fu ngeen dem jàngale leen fa Sëriñ Tuubaa waaye bu leen fa jéem a xam la jëmuru Sëriñ Tuubaa ndax ku xamagul Sëriñ Tuubaa ba gindi ko ci moom boo ko bëggee gindi ci doomam du sotti sëñ bi fu ngeen ko wane buñ ko xamee danañ ko sopp te ko sopp da nga jëriñ Sëriñ Tuubaa mbiram xatalu ko bi bi ñu ko laajee ñuy sag njaboot daa wax ne fépp lislaam àgg ñu ne ko ñuy si taalib mooy mooy julliti kon moom mës a xaajale daraam wax na ko fu ne bind na ko daa na ko doxe kon képp ku ko dégg noonu ba xamee ne Sëñ Tuubaa mbiram xatu loolo dañ cee ànd ak yow te jàppale la ci bu baax kon Sëñ Alsaan ñu ngi lay sant bu baax di dëggam dégg nañ kàddu yi nga wax ak yéene yi nga te lépp bëgg a defar rek tax a tax a tax a ndax suñ borom moo binde doon àdduna walaw shaa rabbuka la jaala naas ummatan waahidatan wa laa yazaalu muxtalifin ñëpp mënuñoo maase jëm ci yoon yoon ba ci jaam bi sax bi ko suñ borom bindee inna hadaynaahu sabir imma shaakira wa imma kafur da koo bàyyee xelam xalaatam muy xalaatam boppam mooy inna kon loolu looy defar rek la kon nag ku ci am xalaat te jàpp ne loolu lu war a mën a dimbali nit la ndax nit ñi rek fi ne li ci am solo rek mooy sellal ko sëñ blaat nag daa wax ne politique nee na mbedd mu xat la nee na booy tàmbali nee na lépp da lay war ci sa wetu ndeyjoor càmmoñ nee na nga ne naa jóge fii ba àgg fee dara du ma toog ci diggante te dara du ma taq nee na ngay moytu numéro ba jàgg nga jëkk-jëkk rek gis ne sabax ci biir daa wax ne nguur neena na moo ko weer ñooy am nee bu bu bu bu màggeer lëndam daal de yaar la àndal boo ñëw dañ lee tàcc boy dem ñu waxoo la ay misaal la yu am solo waaye li am solo rek mooy góorgóorlu te yitte ndax yitte moom ci la fépp ci la ñëpp rawante lu imaamul Xasaali wax ne mahma azuma almadu wa sharb sa'uba maslakuhu wa taala tariquhu wa kasura nga bëgg na mu rëy ak na màgg rek na nga xam ne jafe-jafe yi ak pakk-pakk yi noonu la toll bu ko jëru na doo fa àgg kon ci hadaf yi rek ci la aju lii ko suñ borom faye tey amu ko ci caaxaan daa gàddaay ñu tas këram tasum njabootam génne ko réew mi exilé ko mu dékk ko ànd ak nattu yi ba suñ borom faye ko li mu faye kon adduna kenn mënu fee bëgg dara mu yomb kon nag ñu leen sant bu baax di la gërëmaat li cofeel gi nga am ci yoon ak kóllëre gi da ñaan lu baax it ci barke suñ Tuubaa yàlla suñu borom dimbale la dëgëral la kàttan la ndax xam nañ ne ko am yërmande ci ci nit ñi nga tala rek moo am solo loo am rek jox nga ko nit ñi loolu nag moom li rasulullah rek mbindee fi njabootul yàlla lañ ki gënal yàlla rek mooy ki gën a yërëm ak njabootu nit ñi ki gën a yërëm nit ñi moo gën a suñ borom asalaamaaleykum xam naa waa Touba ci kanam kat dafa am wenn yoon wuñ defoon di ko war a ubbi sëriñ yabal ma fa mu war caa moo xam naa ñu jeexale foofu kàddu yi di sant bu waa Mbàkke waxtu wi daaw la jox sa mbokk ma fas wu rëy naaru góor la jox sëñ Abdou Karim Mbàkke moom sëñ Fallou loolu nag ñoom sang sekk sang sekk bu Louga waa Louga yi sang sekk bu li nga xam ni itam Serigne Touba defal na la ko Cheikh Abdoulaye sa wéy juróo itam defal na la moom it mu doon nit koo xam ni euh, maa ngi lay seedeel ni ku am yërmande la ci mboolem ñi mu àndal mu ngi leen di jàppale ci biir ak ci biti yëpp moo tax mu ñëw ngir saku ñaan élection 2024 yi ñu jëm fas naa yéene samp ndëndam itam euh, kon xam naa ni